rek euh, foofe nag ca diwaanu Bajure ñoom nag bi ñu defee seen ñaawteef ba noppi rek euh, ñu lenn lu dul dawaat rek dugg ci biir àll bi di desandi ca diwaan boobee rek ak ñëwaat ci li nga xamante ne moo bàyyeekoo ci procès euh, ñaareelu yoon bi nga xamante ne mooy procès bu Bofa euh, Bayot foofu nag ñu ne tey lañ doon amal ñaareelu yoon bi nga xamante ne ñu ngi woon ci boobu boobule procès ñu ne nag ñu ñu tudd seen euh, tur ci fit fitna ñu ngi woon jàmmarloo ak ñi nga xamante ne ñooy enquêteurs yi ñoom nag ñoom nee nañ ñëwaat nañ bu baax a baax ci xew-xew boobu nee laalewuñ ci benn yoon ba tax na rek euh, ñu ne cour bi moom jamono ji mu ngi confronté li nga xamante ne moo fa bàyyeekoo ci xibaar. ak euh, ñi nga xam ne rek ay euh, ay témoin la woon su ko defee li cay bàyyeekoo ñu mën a xam ban taxawaay lañ ci euh, mën a am. niñ ko waxoon léegi ci euh, xibaar yi ci ponk yi rek euh, dem ba ci diwaanu Kaolack foofe nag ñi yëngu ci wàllu transport ñoom jamono ji ñoom boo moyul dinañ yëngu-yëngal ndax loolu tax taxoon nañu amal ab waxtaan ak kilifa yi ñoom li ñu bëgg rek mooy li nga xamante ne nguuru Sénégal xaatimoon na ko di aju rek ci lépp luy yembal seeni liggéey ñu saxoo ko bu ko moyul nekk fan yi di ñëw dàqu ñu sax ba banque seen yoxo dañu dem diwaanu Saalum fekki fa Pape Mbaye ci caméra bi Fally Gueye ñu waxante dëgg état bi nax nañu parce que li mu li mu waxoon ak ñun fexe nañu ba ñu lever mot d'ordre bi te li ñu waxante woon ak ñoom defuñu ci dara. loolu mooy gis-gisu transporteur routier yi nekk ci Sénégal ci engagement yi nga xamante ni moom la nguur gi jëlan bin fi amalee seen grève bi buñ sukkandikoo ci Alassane Ndoye mi nekk président des routiers du Sénégal transporteur yi nag ñoom daqu ñoo amalaat beneen grève ngir rek gouvernement bi daal di respecté engagement yi nga xamante nii jëlal na ko. bi ñu jógee ci grève bi ak léegi amul benn semaine boo xamante ni dajawuñu pour di fexe naka la ñuy def ba defaat lu ñu defoon te bu ñu ko defee dootu ñoom dootu ñu def lañ ñu defoon. waaye nit nit dëgg-dëgg boo ko naxee benn yoon waroo ko mën a nax ñaari yoon moo tax jàpp naa ne bu ñu si delluwaatee ñoom naxoon nañ ñu waaye bii yoon moom bu soobee yàlla duñ ñu ñu daal di koy teg ci bopp regroupement des transporteurs daamloo di xamle ni revendication yi nga xamante nii moo tax ñoom ñu doon grève yépp boo ñëwee da nga koy fekk fii ci Kaolack rawatina leen ñuy wooye transport irrégulier. état bi gën ñu cee jàppale ñu am ay oto yu bees war gaynde yi nga xam ne bëgg nañoo nangu transport bi mu jógee fi puisque transport bi doxatut ndax war gaynde yu bëri am na autorité yoo xam ne sax ñu am ay war gaynde kon ñu ngi ñaan état Sénégal mu jóg ci war gaynde yi ñu jógee ci dëkk bi. transporteur yi nekk ci Sénégal nag di xamal nguur gi mu daal di respecté engagement yi nga xamante nii moom la jëlan lu ko mooy rek bu na grévaté dina metti lool ci askan wi. dañu dem diwaanu Mbour wax jëlu aju ci wàllu politique ak mbiru Karim Wade ak Khalifa Sall ñooñu nag ñu seen xam-xam ci jëm ci wàllu yoon ñu ngi doon waxtaan ci li mel dañu gis ne rek suñu euh, ñi nga xamante ne juridiction yi faw ñu gën a yembal seen i taxawaay bu ñu bëggee rek yenn xeetu jëfin mën di bañ a am ci suñu réew yi loolu nag nee nañ faw euh, réew yi di saxoo li nga xamante ne moo aju ci convention yi nga xamante ne moo bàyyeeko ci euh, lii euh, tënk réew yi Mamadou Gueye li ñuy teewlu ci reporta euh, reportage Abdourahmane Diallo àndoon ceeg Mamadou Gueye. réew yu bëri Afrique bokk nañu ci ay tribunaux internationaux waaye saa yu dogal amee duñu ko respecté Sénégal ci la bokk ndax ci mbirum Karim Wade ak Khalifa Sall nguur gi bañoon na respecté dogal yi nga xam ne jógee na ci tribunaux internationaux yi. mu jëm Karim Wade ci sous commission des Nations Unies CEDEAO Euh, Khalifa Sall ay dogal yoo xam ne CEDEAO jël na ko ci ci nguuru Sénégal euh, Sénégal am ci lu mu ci jiixi jaaxa mbala di ko xoolaat ah, loolu moom comme ni ñu koy waxee rek ni ñu koy waxee loolu yoon ndax mbir mi ah, te woon yaa ko d'accordoon donc bis bu daanoo sa kaw da nga ko war a nangu loolu mooy démocratie loolu mooy état de droit. ak liñ ci xaw a ah, déplorer mooy système international mooy communauté internationale amul voie d'exécution maanaam ab nguur kenn mënta wañ loxoom. des exemples yu tax ay kuréel yu yëngu ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama waaye tamit ñi seen xam-xam màcc ci wàllu yoon daal di toog di waxtaanee a tax réew yi nga xam ne bokk bokkuñu ci kuréel yooyu nan lañu a mën a def ba saa su ci Somone saytu lépp lu jëm ci nga xamante ni mooy consentement maanaam état bu joxe boppam pour ñu saytu ko ëllëg lan moo ko ci mën fekk bu dee loolu euh, domeewul comme ni ko bëggee bu dee décision yi nga xamante ni moo fay jugee appliqué wuñ ko à l'interne comme ni mu waree donc yooyu yëpp doon ay mécanismes yoo xamante ni war nañ ko xoolaat en Afrique te loolu moo ñu fi dajalee euh, ñaari fan yi di ñëw. ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu yoon ak ñi nga xam ni dañuy yëngu ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama jàpp ni nguur yi lii nga xam ni siife nañ ko ci tribunaux internationaux yi dañ ko war a mën a respecté ndax ñoom ñoo ci boole seen bopp loolu rek ngir sàmm àq ak yelleefu doomu aadama yi ba noppi suqali jàmm Abdourahmane Diallo bu ñu jógee Mbour dañuy ñëw ba ca diwaanu fi nga xamante ne mooy jam ñaajo ci jamono ji nag ñu ngi fay amal bés bu wala sax bés yu am solo lu aju ci nu ñuy saytoo wàllu ndox ñu naan ko forum de l'eau moo taxoon nag bésu tey ji ñu taxawoon ci li nga xamante ne mooy Ebraya bu ñu duppee Grand Prix Assane 2 te ñu koy faral di jox ñi nga xamante ne rek ñooy fësal seen taxawaay ci lépp loo xamante ne mën nañu fexe ba ndox mën na yemb ci féete euh, réew yi nga xamante ne ñoo féete Afrique sowu jant atum ren ji nag waa OMVS dañ ci fës lool ñu ne li ñu bëgg rek mooy fexe ba liñ leen dénk ci lu euh, aju ci wàllu mission ñu matal ko bu baax a baax Habib Faye Thierno Laurent Mendy bokk nañ ci ndaw yi ñu fa teewal. raaya gi ci digg loxoom di firndeel liggéey gu mucc ayib bu OMVS def di organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. prix bi ñu ngi ko jagleel Assane 2 moo di juróom-ñaareeli édition bi Ahmed Diane Samega mooy haut commissaire bu OMVS moom liggéeyam googe lañu ko ci ràññi gannaaw juróom fukki at yoo xamante nit liggéey nañ ko ci wàllub ndox. donc pour jot prix bi fii ci biir Dakar di prix roi Assane 2 ci biir film bi gis ngeen ko Assane 2 doonoon na koo xamante ne xalaatoon na Maroc vert horizon 2000 bi mu koy wax ci 1976 kenn gëmu ko woon. loolu dafa war ne tey ni lu ñu sargal la mbootaay gi ca anam ba ñu ko sancee bokk na ci ñu ko jëmal di Ahmed Sékou Touré Modibo Keïta Mokhtar Ould Daddah Léopold Sédar Senghor ñu bàyyi lépp luy seen bànneexik bakkan sanc lii dem ba ci Fouta jaloo ngir mën a teg lépp ba tey mu jural leen lii parce qu'ils ñoom dañu boole seen doole ngir lu baax lépp ci Afrique Mali boo xoolee le haut foofu Sidi am na fa le haut de foofu mënoon nañ fa sànc ay site waaye déet dañ ne déedéet defuñu ko dañuy bokk seen ndox ak Sénégal Mali di fàtte ni loolu moo gën a jëmmal OMVS. amoon nañu vision pour am organisme boo xam ni maanaam danay dajale dëkk yu bëri am loo xam dañ koy soddoo ci wàllum énergie ci wàllum mbay ah loolu dafa nekk lu am solo. Euh, loo xam ne ak même ci wàllum ay ay yeneen infrastructure yoo xam ne day dugg ci euh, defar yeneen dëkk dëkk yi parce que su ma nee programme SOGENAF par exemple dafa nekk un programme intégrateur. teewul itam di xaarandi yeneen ci ay raaya yu gën a kawe. comme ñu gën di xalaat ci prix Nobel bi lii nii ñu jox ñu tey di raaye gi dafay wane ne lii dafay gën a dëgëral ne OMVS loo xamante ne ne lu dëggu la te it ak mbégte laa koy waxee ndax boo xoolee suñu vision euh, monsieur le ministre wax na ko léegi nii au commissaire OMVG wax na ko mi nga xamante ne ni sax moom suñu rakk la tam ngi dox ci suñu tànk OMVS ñu sargalee ko gannaaw ba nga xamante ni sóob na loxoom ci tem gi ñeel wàllum kaaraangeeg ndox gi ci àddina wërngal këpp waaye itam ca anam nga muy gënee ñoŋ ak lii di kaaraangeeg dund gi. Abi Faye dañuy desandi ki yow nga ñëwaat rek ci poñ yi nga xamante ne moom lañ jàpp atum ren ji ngir fas yéene ko doxal ñoom nag ci seetlu bi mu yemook ñaareelu forum Dakar 2022 ana lan la ñu mën a jàpp ci li nga xamante ne moom lay kilifa yi nas euh, ngir lëpp loo xamante ne mu aju ci wàllu mission ñu doxal ko ni mu ware maa ngi lay fay bu baax a baax tey mooy ñaareelu bëccëg gi ñeel neuvième forum mondial de tey tamit coïncider ak journée mondiale de l'eau ñu koy fas yéene waxtaanee bokk na ci tamit ci biir programme bi nga xamante nit ni Euh, conseil mondial de l'eau ak Sénégal dañu lëkkaloo dina am ay panel yoo xamante ni des nañ koy waxtaanee fii nga xamante ni mooy ci diwaanu Sikat waaye tamit am na ci ay exposition yoo xamante ni tamit euh, dinañ ko ci wax ba léegi tamit euh, li ñeel wàllum sécurité et l'assainissement de l'eau pour le développement rural bokk na ci thème yi nga xam ne dinañ ko fi développer ni ki tey ci ñaareelu bëccëg bi ba léegi tamit xool ana yan jumtuwaay ak yanik pexe la ñuy lu ñel wàllum koom ci biir ndox mi Euh, dina mën a yemb ba léegi tamit fii ci diwaanu Sikat ci ñaareelu bëccëg bi euh, des nañ fi waxtaane yoon gi nga xamante ni tamit dinañ ko mën a gën a mën a jël waaye bu boobee euh, dañ koy tas ci ñeent pàcc yoo xam ne Sénégal mooy animé benn bi beneen bi conseil mondial de l'eau moom moo ko fas yéene anime ba nga xamante ni lépp fii tey dina jaar ci yoon ci kaw loolu tamit am nañ ay conférence yoo xamante ni dinañ ci waxtaane ci wàllum ndox mi wàllum assainissement wàllum alimentaire lépp dinañ ko fi jéem a waxtaanee tey tamit liñ fi gën a nemmeeku moo di askan wi dañu gën a ñëw en masse wuteeg lool démb euh, muy bés bi nga xamante ne moo di ibite gi euh, commencé nañ tamit li nga xam ne moom mooy travaux de groupe yi euh, ci bu ci nekk ci biir saal yi boo gisee noonu la askan wi ici askan bi tamit ñëw nañ ñoom teew. xool itam nan lañ gën a mën a def waaye tamit gën a mën a ñoŋal li nga xam ne moo di seen projet bokk na ci lu ñu gën a mën a jàppagum ni ki tey jii fii ci ñaareelu ko bëccëg gi ñeel neuvième forum mondial de l'eau Abi Faye teewal ñu foofu fi nga xamante ne mooy diwaanu Diamniadio ñuy fàttali ne ñu ngi euh, ci neuvième forum mondial waaye tey moo yem ñaareelu bés bi nga xamante ne gannaaw bu ñu tàmbalee liggéey bi ba léegi dañuy wutali nag euh, diwaanu euh, Fatick foofe nag euh, lu aju ci juróom-ñeenteelu forum mondial de l'eau ñu ne nag askan wi dañ ci porox ndolu rek ngir lépp loo xamante ne ay jafe-jafe la wekku rek ci wàllu ndox ak nees def ngir mu mën a am foofu ci diwaanu Foundiougne ak li ko war ñu ne Union nationale des consommateurs du Sénégal amoon nañ ci ab ndajeek taskatu xibaar yi ngir fësal ban taxawaay la mën a am ngir lépp loo wàllu ndox askan wi jot si ni mu waree Aminata Goudiaby ak euh, Abdou Karim Bey ñoo ñu toogal ci diwaan ba. union nationale des consommateurs du Sénégal nag ñoom ñi ngi woon ci Foundiougne ngir jàppale askan wa fa nekk rek ñu yëgluwaat ji jafe-jafe jot ci ndox mi nga xam ni moom la ñu am ñoom nag dañoo bëgg xamal autorité yi ne boobu bañ koy jàmbat ba léegi daanaka safara amagu ci dañ ne dañuy profité ci neuvième forum bi te monde bi yëpp di ko organiser ñu di ko defee tey ren Sénégal di ko defee à Diamniadio centre Abdou Diouf bi ndaxte dañ ne stem bi dañ ne fépp na am ndox mu sell te mëte fépp ndox mu sell moom te fépp bu ñu fàtte ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si dëkk kaw gi ndax ñun ñoo war avant surtout bailleurs di lancer appel tamit bailleurs yi nga xam ne ñoo fa nekk di appuyer si wàllu ndox ñu jàpp ci ba nga xam ne dinañ mën a appuyer Foundiougne ndox mi ni mu mën a ñëwee. ci ab conférence bu ñu doon amal nag askanu Foundiougne ñoom dañu wax ni sax am na ay solution yoo xam ni xëy na ñu ko defee dana indi ab saafara ci jafe-jafe ndox mi nga xam ne moom la ñuy dund. ndox mu neex la ñu soxla boo xam ne mën nañ ko naan utiliser ko jëfandikoo ko suñu biir kër yi ne dañuy raccordé si benn dëkk bu ñuy wax Niayane Moussa Ndiaye nekk à 70 bokk si commune bi ñuy wax Nioro Alassane gaawee ñu def ko. commune yu Foundiougne yu Mbam ak itam yu Soum ñoom ñu ni dañoo tàyyi ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund boobaak léegi ëpp juróomi at ndaxte ngir nga a dee foofee ci Foundiougne. Soum moo njëkk a ñàkk ndox Foundiougne 2017 euh, si un an ñun ñu ñàkk ndox mënutoon euh, doy waa Foundiougne doy waa Soum ci kaw loolu nag boobu ba tey ñun association des consommateurs ñu ngi taxaw képp koo xam ne acteur nga si ndox mi ñu ngi taxaw di waxtaan ak yow pour jafe-jafe boobu mun a saafaraw Foundiougne ville touristique la tey boo xoolee tourisme su fi deeyee ndox mooy tax tourisme def ndax ngay dem ci hôtel yi du ñu am ndox feebar yi dund mooy diabète ak tension ndoxu xorom bi la ñuy naan askan yi yeewu ci arrondissement bu laa itam ba léegi ci biir région bu Fatick ak itam ci yeneen gox sax ñoom itam benn jafe-jafe bi la ñu am jëm ci ñàkku ndox ñoom nag ñu ni neuvième forum mondial de l'eau bi nga xam ne moom la ñuy organiser ci dakaar xëy na dina indi saafara ci seen jafe-jafe bu tar boobu Aminata Goudiaby bu ñu jógee diwaanu Foundiougne dañuy utali Gandon digganteem ak Saint-Louis toll ci fukki kilomètre ak ñaar ñoom nag dañu porox ndolu rek ci forum mondial de l'eau mu yemoo bésub tey jii ak bés bi nga xamante ne moom la jagleel wàllu ndox wala sax ni ñuy màggal ndox ci wàllu àdduna bi ci àdduna bi loole nag tax na ñu ñëwaat ci seeni jafe-jafe mooy waa askanu Gandon nee na nag jamono ji am fa ndox mu sell moom doon na lu metti lool saa yi ñu yeewoo dañuy def kem kàttan ànd ceeg coono lool ngir mën a am ndox mu sell Ousseynou Diop ak abib Seck doxantu woon nañ fa. dëkk bi nga xamante ni Po Ndiawdoune lañ ko duppee waxtu bañ fay ñëw toll ci miti température bi yéeg lool gis nit mu tambambaalu lu jafe la xale yi waajal napp gi jigéen ñi ñoom jamono jooje ñu ngi ci dex gi. ci dex gi fa la ñuy defee lépp fa la ñuy naane fa ñuy waajale seen i togg yi di fa sangoo itam. moom duñ siy naan duñ siy fóot duñ siy togg lépp di si sangu nun ardu jafal rek waaye saa saa si def sax ardu jafal dañuy naan noonu rek jàpp si loxo yàlla rek. yëpp yëpp dañuy attaaya duñ siy togg añ ak reer yëpp ndékki booy def café yëpp dañ siy def ndox mi la ñuy utiliser. askan wi nag ñu ngi nekk ci jafe-jafe ndax ndox ma ñuy naan bu fekkee ni sax leer na nañ feebar yoo ciy juggi dafa bare. ndox mi dañ siy sangu dañ koy naan pour suñu robinet doxal robinet te moom la ñuy foot moom la ñuy sangoo dara ndox bi li muy def rek noonu du si moom. soxna sii du ndax ma nga sa bopp ba ndox bu diis gànn wax sax ko. na wala métti. métti na lool. Ah, dafa diis na koy. Ah. ak forum mondial bi nga xamante ni ñu ki ciy am ñoom nee nañu ñu ngi ciy prox ndollu ngir nag daal di ci kàddu jëmale ko ci askan wi. lu waaye di man na ko def pour ndox mi ñëw fii. fii si dëkk bi. chaque jour ñoo ngi yoon lu sax benn paan yu ay dix paan yaa koy yéen yóbbu ko sa kër waaw. naam ci bët gànnaaw réew mi am nay liggéey yu am solo yoo xamante ni taxawal na ko waaye yenn ci prox ndoll yi nekk ci dëkk bile. waaw li nga xam am ndox moom lu jafe la ci ñoom. ñaxeen pekes tamit ñooñu jamono ji am nañu jafe-jafe lool ngir mën a am ndox mu sell loole nag di dëkk bu nekk ci département bu Tivaouane ëmb lu tollu ci fanweeri dëkk ak ñeent ñu ne nag ñeenti bés a ngi gannaaw boo xamante ne forage bi daan jox ndox dëkk yooyee nag panne ñu ne nag ab coupure bu bàyyeekoo ci euh, kër liggéeykat bi di Senelec moo waral li ni ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu wallu leen ndaxte nee na jamono ji metti na lool ñu teewlu ci ki nga xamante ne mooy Pape Yoro Diop moom ñëwaat na rek ci loolee ñu ne du li nga xamante ne moom la askan bi jàpp ñu teewlu reportage bi ci Cheikh Anta def àndoon ceeg say laatir ñi ngi fii ci Ndiéné Amar nekk ci arrondissement bu Ñaaxeen département bu Tivaouane fii de forage bi dañu ko tëj ay fan a ngi nii nag soxna yi askan wi yeewoo fii njàmbat li benn la sonn nañu lool ndaxte mënuñu amam ndox. metti ndax amoon nañ yaakaar ne ndii ne moom liñ sonn ci ndox ak liñ liggéey si ndox waruñoo war a mën a toog ba am jafe-jafe ndox yu metti ni kon coupé bi moom bett nañ trop. fu ñuy wute ji ndox xanaa ñu ngi dem ba ay perkees ak ay ñaaxee ak tillu saate xam nga foofu sori na ci ñun. commencé naa metti lool ndax nag ba ba tey te soo ba tey nu naanunu sanguwunu suñu doom sanguwul sunu jur li sangu naanunu te soo ba tey ñu ngi mel ah ndox mi forage damaa ñëw ne coupé nañ abdu Aziz Amar mi nga xamante ne nag moom moo jiite kuréelu Asifor yi nekk ci arrondissement bu Ñaaxeen joxoñ na ci baaraamub tuuma waa Senelec ndaxte nee na facture yi ñu leen indil de ñu koo fay te dafa jéggi dayoo. Senelec daal dëgg dëgg dëgg dañoo sentir ne ñun forage yi nga xam ne si moo commencé Pekes Ndiine Ñaaxeen Thielmaxa Ñaxal am na complot bu mag boo xam ne Senelec def na ko boo xam ne contre ñun ndax ñun forage yooyu nga xam ne ñun ñoo bokk forage yooyu. amul ci benn forage boo xam ne mas nga ameel Senelec arriéré facture bi ñu yor rek lañu ko ameel parce que dañu constaté ne depuis deux mille vingt Senelec ni mu nuy facturé xaw ma lan la def ci compteur mi waaye jaaduwut nañ ma njëkk a jox facture bu un cent mu yokk waa deux millions cent ñu yéene ma facture deux millions huit cent chef agence Senelec bu ngay Mekhe dem nañu nag seeti ko nee na mun ci yee yàbbi ci waaye nag lim ci mun a wax moom mooy ci ay fan yu néew de daañu xool ay pexe ñu jógee ci wàllu ndox ak nees def ngir mu yemb fépp ci réew mi wax ci mbiru tàggat yaram ak euh, daje bi nar a am diggante Égypte ak senegal aju rek ci euh, match qualificatif euh, Coupe du Monde Qatar 2022 ñu ne nag démb foofee ca Marrakech bëri na ci gaynde yi ñoo xam ne rek ñu ngi fa jamono ji jotoon nañu amal seen tàggatu njëkk dañ ci ñëwaat ak Mamadou Ndiaye. ci yu match Égypte Sénégal gaynde yi amal nañu seen séance d'entraînement bu njëkk fii ci Maroc ca Marrakech ci altine ji séance d'entraînement bi nag ñëpp teewee nañ ko ba mu des kii di Pape Abdou Cissé mi nga xamante ne dafa des ci hôtel ba gannaaw gaañu gaañu bi mu amoon ci championnat bi bu Dia moom tamit teewul séance d'entraînement bi waaye li ci gën a am solo mooy Aliou Cissé am na effectif am gannaaw fukki joueurs yi ñëw yeneen fukki joueurs ak juróom ñëw nañu daal di rejoindre tanière bi. ngir amal liggéey bi nga xamante ni gaynde yi fas yéene ko def fële ca ker ci ajuma ji fas yéene jàkkaarloog Égypte gannaaw ndam li nga xamante ne équipe nationale bu Sénégal am na ko keroog ca finalu Coupe d'Afrique bi. léegi nag ci éliminatoire Coupe du monde yeneen ñaari match yu am solo gaynde yi bëgg ci am ndam ngir rek. daal di qualifié ca coupe du monde Qatar 2022. séance d' entraînement bi nag bariwul lool changement ci bu 18 jotee Aliou liggéey na ak ñaar fukki joueur ak ñeent yi nga xamante ni ñoom ñoo teewee ci sélection bi fi ne nii waaye tamit amal na li nga xamante ne ay séance de décrassage la. yenn yëngatu-yëngatu am ak yi tamit yeneen taxawaay yi nga xamante ni ndaw ñi am nañ ko. Mamadou Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal lekk fii ci plateau bi ak Marcel Maroun bi nga xamante ne mu ngi doon teewe rek ndaje bi nga xamante ne fédération sénégalaise de football ñu ngi ko doon amal rek mu aju ci wàccaayu match bi nar a dox diggante Égypte ak Sénégal ana lan nga fa jëlee ci luy yees. waaw euh, Ibou Diouf ginnaaw bu ma nuyoo euh, téléspectateur Télé Futurs média di xamal rek ne ne gannaaw euh, démb réunion bi nga xamante ne inter commission bi moom bi ñu jox mbiru préparation match Sénégal Égypte nar a am le 29 mars ca stade bu Abdoulaye Wade gannaaw donc ba ñu defee démb benn euh, benn réunion tey ñu daal di fësal lu gën a xóot ci wàllu organisation euh, match euh, boobule donc ñu daal di def donc le point se joue au niveau de la fédération sénégalaise de football sànq rek le le boobule point daal di jeex ñuy fàttali que ku bëgg jot ci ticket yi mën nga ko jot a partir d'aujourd'hui tey nag le vente yi vente ticket yi daal di daal di tàmbali donc am na benn site internet boo xamante ne moom lañu dédié ou les ventes ak yeneen i euh, point de vente yoo xamante ne euh, fës na ci ci ci biir réew mi donc euh, demande d'accréditation itam lu jëm ci wàllu suñu naataango journalistes yi tàmbali nañ ko tey sachant que pas moins de 300 journalistes donc ñetti téeméeru journaliste la ñuy euh, la ñuy xaar ci ba couverture boobule match 200 euh, journalistes yi nar a jógee ci euh, ci réew yi et puis 50 étrangers 50 rien que pour la RTS donc loolu mooy li ñu fa jot a jëlee ci wàllu taskatu xibaar lu jëm ci wàllu tamit kaaraange ah c'est aussi important ñu ñu wax ko ñaari junni takk der lañ fa lañ fa nar a lañ fay xaar d'ailleurs ñun ba ñuy yegsi di waajal point de presse boobu noonu ñoom takk der yi ñu ngi fa doon jógee jóge ci ci benn réunion ak autorité fédération euh, sénégalaise de football euh, yooyu la di euh, fàttali rek ne que lu jëm ci wàllu VAR am na gan bu bees ci biir ci biir suñu stade muy muy VAR donc VAR boobu noonu jot na def benn test VAR bi nga xamante ne FIFA daf ko exiger autorités yi ngir ñu baña a xaar rek bu le jour J mbir bi bañ leen bañ leen a bett rek donc mhm. ce test la a été a été réalisé et puis ticket VIP dafa am beneen particularité mooy ticket VIP ak VVIP yoo xamante ne VIP 100000 francs. VIP VIP mooy lan la ti sax. waaw very important person ah. personne très importante <laughs> ni ñu koy waxee ci séeréer sax. Ah. <laughs> <laughs> donc cent mille euh, pour VIP deux cent mille réservé nañ ko jaayaguñ ko nag am na ñoo xamante ne réservé nañ ko et puis c'est déjà plein euh, c'est c'est ce sera donc à guichet fermé match bi mm-hmm. Mm-hmm. Euh, guichet fermé lañ koy lañ nar a jouer ñuy fàttali tamit donc justement que ci veyu match boobu noonu la ñuy nar lu jëm ci wàllu vente vente ticket yi soit le lundi 28 mars 2022. est-ce que jot nañu àddu ci nekkinu gaynde yi jamono ji fële ca Maroc rawatina Marrakech. non fu mu nekk nii organisation bi rek. Ah, li li nekk fii daal voilà en fait intercommission bi nga xamante ne moom la ñu euh, Euh, jagleel mbiru organisation bi ñoom ñoo doon def point de presse donc mhm. euh, lu jëm ci wàllu euh, état de forme joueur yeeg li mel loolu c'est pas c'est pas de leur de leur ressort donc xanaa rek suñu peut-être naataango yu nekk Marrakech nañ ci ñu ci mën a gën a leeral après jërëjëf Marcel Maroun niñ koy waxee rek li nga wax baax na xanaa di la jaajëfal rek ñu yegsi ci ponk bi mujj ci xibaar yi di li ci yenn kaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye l'observateur jërë ngeen jëf Macky Sall magum xamoon naa ko lay bañ a doon l'observateur nañu moo taxi teel naa yëglu teel alerte démb ba ñuy ubbi ca jam ñaajoo ndaje mi ñu jagleel waxtaane wàllum ndox ci àdduna bi mu di neuvième forum mondial de l'eau waxee moom Macky Sall li ay jafe-jafe ndox mën a ay conflit ci àdduna bi soleil national tuddee ko l'alerte de Dakar mu di yëglu gu ñu teel a yëglu fii ci Ndakaaru ngir mën moytu musiba yi mën tukkee ci am ndox kilifa yowoon ca ndajam démb ma soley nee nañu sàkku nañu it ci réew yi am doole ñu baal Afrique bor yi mu gàddu te mu tukkee ci wàllum ndox ñu dox dem ci Sud Quotidien mi xëy moom it di ñu wax ne kii di Macky Sall ci turu président union africaine gi mu doon sàkku na ci réew yu G20 yi li ñuy def ak di ko wax ñu bàyyi ci xel bu baax a baax mbirum ndox mi ndax doon na loo xam ne bu ñu ko seetaane baa ñu sàggane ko mën naa jur musiba ci Afrique lise ko nañu yamu wax na bëgg-bëggam ngir ñu dugal union africaine ci biir kuréel gii di G20 xam la ne it ni juróomi nit yu ñu jël bi ñaar ci ñoom mënuñoo jot am ndox ni mu mu ne mat ñaari milliards yi doomi aadama yu teg téeméeri bi ñàkk pexe tax na ñuy jëfandikoo ndox mu baaxul journal l'info bi tuddee ko l'alerte de Macky Macky Sall nee na li ci ndox mi bu ñu ci sàkkuti pexe dafay gën di doy waar rekk di dem ndax nit ñaa ngi gën di yokk dëkkuwaay yi gën di màgg kàdduy président Macky Sall yooyee moo nekk ci xët mu njëkk Le Quotidien kii di Barthélémy Dias maire bu Ndakaaru moom it ay kàddu yu mu yëkkati jëmee ko ci ndajam ndox mi ñuy amal ci Ndakaaru mi ngi ci Le Quotidien Barthélémy Dias nee na neuvième mondial de l'eau gi ñu def ca jëm ñaaju forum des terroirs la waaye du forum des états ci les échos mënuñu fa ñun mënuñoo bokk ci ndaje moo xam ne dañ fay toog rekk di waxtaan weesu nañu jamonoy wax jamonoy jëf la ñu toll moom Barthélémy Dias ba tey mi ngi ci Walf Quotidien la mu fa wax moo di ak réeroo du am diggam ak Macky Sall ñi réeroo ba kenn xamatul fan la sa moroom féete moo di waa bokk gis-gis ci diwaanu Mbàkke source wa ak Vox Populi di ñu xamal ci seen xët yu njëkk ne honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly mi ne woon coordonnateur départemental bu bokk gis-gis ca Mbàkke gaa dàq nañu ko bokkatul ci bokk gis-gis ñu gis ci Vox Populi président des cadres républicains du Sénégal di Maxime Montero yéenekaay bi dañuy wax li tukkee ci ndaje mi woote woon démbu ci altine ji ca Nioro jëmoon ci wàllu parrainage bi Vox Populi moo xam ne fu nekk la militant yi jógee woon ca ji ko li mu leen sant moo di ñu góorgóorlu ba ci wotey législatif yi ñu jëm ñu am fa majorité absolue ni ko président Macky Sall bëggee moom Maxime Montero yéenekaay bi nee na ñu ñaawlu na fay li mu tuddee ak ñàkk sincérité gi yenn responsable yi parti bi wane keroog ba président Macky Sall demee ca Saloum nee na ci juróomi responsable yëfa yëkkati kàddu ñaar rek ñoo fa wax luy dëgg lu ñu mën a dégg waaye ña ci des ñëpp li ñu wax président Macky Sall mi ngi ci sursoi ubbil yéenekaay bi équipe municipale bu bees ba fa nekk seen première session ba ñu ko convoqué bu ñu demul luye ji ay chaise nit ñu duñu am fu ñu toog li ko waral nee nañu moo di ca mairie bu Parcelles Assainies dara amu fa chaise yaag ordinateur yaag fauteuil yaag taabal ya lépp la gaañiroñ yóbbu ñi nga xam ne ñooy adjoint yu maire bu bees bi ba ñu leen falee ba léegi mënaguñoo dem ci seeni bureau ndax bureau ya dara fa amul li ñu libération ne moo am ca Sonatel ku ko dégg jàpp sa gémmiñ yëral xët mu njëkku yéenekaay bi lu toll ci 990 millions moom la ñu fa caxat-caxatee sàkkal ko pexe benn mafia bu ne manipuler système vente carte yi daanaka ñaari at a ngi mu nekke ko libe di ñu xamal ci woowu li wàll am na ñaan ñu ci tegagum loxo yoo xam ne ci agence boulevard de la république la ñu ne woon Mamadou Mouhamed Ndiaye cant ak ngërëm ñenn la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi di lay ñaanal kenn du jàmm di ko sàkku ci yéen bàyyi leen ngeen wéyal programme yi ak Pape Cheikh Diallo sama jaam bi bon c'est dommage que j'entends rien Ibou mais bon njooko Njal. Njoko Njal à paax Njoko Njal à part tu sais euh, euh, li moo tax liggéey ak jigéen dafa jafe quoi. Uh-huh. c'est pour énerver un peu Gabriel. parce que fu ñu nekk day bëri bruit. Uh-huh. là elles sont derrière. Ouais, mais ñu ngi indi bruit yoo xamante ni j'arrive même pas à entendre li ngay wax. mais bon ñu ngi lay gërëm. <laughs> yàlla baax na jërëjëf merci ñu ngi lay gërëm bu baax Ibou Diouf gërëm itam rédaction bu télévision Futur Média.